alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah aasbillahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim bokki Malbn ñu ngi ci darsu bi ci diwaan bi ci Taysiirul Wusuul ci paas 35 yombal ak yal yàlla yombal suñu mbir yëpp ci barke borom diwaan bi ci barke diwaan bi caafu sa antu wa quttul xalqa bil matti alfasu mm-hmm. wow barasu allahi wal xaxada ahfasu sa antu laxas naa boo ko déggee nippal sàmmaan yi def seen nag yi takk yëpp bagage teg ko ci kaw sare jiital nag yi mm-hmm. noonu la def mbindeefi yàlla yi waquttu waman naa alxalqa mbindeefi yëpp alfasu maa ngi tudd bin ma ci ay tagg maa ngi sànn lëf su ñu ko tuddee lëf su danañ ñu ko lëf su mooy da ngay boo yor sa kàddu gi day sànne ko mm-hmm. maa ngi sànne kàddu yi wa ahfasu maa ngay sàmm xubba rasulullahi bëgg ndawal laaw li war ak wóolu ñaar yi maa ngi ko sàmmante ñoom jiital na jiital nasiiru ñu ngi dox maak ñoom bi seyrin doxin yëstari boo xam naa wax da basirin waaxu gilema konkal bàyyi na mooy defee seyru ci yàlla ak gaay bi giwél gé gëleem mën a koo waaxu konkanum gëleem mënul waaxu waaxu dégg nga euh, kon seyru tey la gën a gaaw euh, wali am naa miqawalun waxuwaay mooy làmmiñ yow doo boo xam ne ma nga jooro boo déggee pëlli buñ toppee seen nag yi ngoon nag yaa ngi suur ñuy ngaaraan ñuy wëy nag yi ngaari moom mooy maa ngi jooro way yalfisu maa ngi sànni bil ma si takk yi waqat alima wér na ne xam ne al góor yàlla boo diggee aqwaam rek wóor na ne ne animan Ibrahima Niass mu bari suñu ku leen raw la maa leen raw fuuf wamin maradin waaye nag ndax feebar jaaroo lañ nangee ali ci mu ko axla suñuy naqadi rek jubal doo nga leen dal ba tax ñu may jàng ci sama kaw dama jaay naqade na doo dara waaye xam ne lu ma seen waroon yoo xam ne waaye fekk ndaw li mu jaawe li mu ngi dëkk man maa ngi ñoo nekk ñoom ki leen tax ne deewoo yëpp maa ngi moom ñoo nekk ñëpp naan maay soppe nag man nag kulun wal lay ñoom lay koo kulun yadda eh bii saali lay laa falaa lay laa takk doom bi saali kenn ko ne man tey maa ngi siiri lay laa mu ne lay laa waxu leen ko de ah ñoom ñaar nga nga fekk jàkk ba defee nga demal jàkk bi kamal la ndox déet mu ñaar ba jàkk bi wax ne ni ñii jiw laa ndox waaye kay lay laa nee na benn may man kam saa lay laa mooy mooy Ibrahima Ñas ah kon nag man day naan leen xale war a soxla jaww ji isa sax dafa wane gannaaw arbaabu nu foo si borom bakkan yi woo am foo sooju mel xafu googu mel fi bi nitu bakkan yi buñ wanee gannaaw faalo wuñ ma mer luy sama yoon ci ñoom nañ jëm wa innee man abdoulaye maa jaamu laaw benn jàmm man la de ndaxte maa taxaw xalaat si biir tuuti àndoo maa ngi jàng ci kitaaboo tiram romana kiraa jan ba rasulullahi a bu la neexee woo uqalisu woo uqalisu maa ngi tagg jën ba rasulullah yi ci côté rasulullah ndaw laa daal di fekk sama dara fi dara gi daw maa ngi nekk di wëy taxaw ci kanam rasulullah dafa tagg lii laa nekk wa inna rijaal laay naka góor yi nga xam góor yi laa daanu suufe nañ li taat ma topp kon dégg nañ ne ku nangul topp nag bàyyi soo ne góor ak yàlla yi weddiwuñ la waaye nag ah ñu daal ñu liñ gëm mooy li may wax koo xam ne góor yàlla nga yaa ngi topp sama kaw ah wali am naa bi rasulullahi cër na wallaahu laa am man bir on mbubu kom mu xale su boo xam ne bu tar la maa ngi yor mbub moo xamante ni fett du ko dugg jaas du ko xar fa aynu ay naa yaati ilahi bërëb jagleeg yàlla bi fadli yi ca mbaaxam nga bi badrin maa ngi nekk ci bàdd yi woon masir wala maa ngi nekk ci capital yi bërëb jagle yàlla fu ma mën a nekk jaani bi ci sama côté tala sunam tey génde ko adar fii dara ko tukk rek bërëb jagle yàlla ba may xool Ibrahima fu mu jëm rek mu may contrôler te moom ku muy xool dina contrôler kenn du la woo woowoon képp koo xam ne laa xasatu ma koy génde ko mm-hmm. ay nu gis gisab yàlla mm-hmm. xaf fa day daal di woyof kullama lépp loo xam ne yu xaafu def na ko ragal al ci moom mm-hmm. wala adu noonu bu ko noonu su bu yàggee gis ko noonu ba bàyyi ba mu yàgg mu dikk ne xale xay na yéwén bi ma raa yéwén nag dëgg dëgg Ibrahima nag du morom nag faas maa ngi sant la bi ma bàyyi loo seen sërëb bil amin yi mm-hmm. amin bi ma boneel wut yi ak bëgg ma ko bëgg sa aq di mu nar naa koo lëggeel ma xam tagg mm-hmm. ma daa daari féeg daru gi daru yu mos gis nga bàyyi du waxee bàyyi du waxee saman du waxee dunya du waxee uxra feeg dunya ngay daw uxra ngay daw may face A ak face B mm-hmm. ñoom ñaar ñooy daw ba jeex xam nga kese doo ko jeex ñu doo ko dugg nag liñ bi wax ne mooy liñ bàyyi daw rek lay waxee alayhi salaatu laay suma salaam woo alay nekkalam salaat kon salaatu ma al fam na saara moom dëggu woo bi rasulullahi walaade afasu fekk mu rek ko wax rek yal na salaat salaat nekk doom alay yàlla ko maa altiraamu sa bi kasaara kon salaamun salaamu mal jannaa bu fee côté mu xari sun lu ñuy tagg la di koy rek yal na salaatoo boobu nekk ci amin xarfu taa ci page 36 ci tey ci musoon ba tey ci diwaan bi bàyyi ne xanaa ni soom gi nga xam ne moo gën a métti koo yoreel bor mu war la fayee ko te mënoo ko fay te yërëmu la wasew ak sama jëfër nga xam ne damaa teqaleeg sama soxla li nabi ma defal ko nabi ñaar yooyu dëkk tax na yu ne si damay sawar dafay sawar kon xilaam sama xalima sama xalima yi dañoo sawar pour bind li may bind li may wax wa tajri ma ngay daw filma daay mi muy filma di ci ay takk yoo xamante ni wa tuxal su muy takk moom sama xalima yaa ngay daw rek sawar lool pour bind ci takk yi wa ma sa alay ana ban histoire mooy daal sama kaw in junnentu buñ ma da eh, buñ ma dofloo biw bi ci bëgg buñ ne Ibrahima dafa dofe ci ni mu bëggee waayam ndax dinaa jëlee histoire waaye déedéet waqat saara mujj na min yi ci sama ron kiliftaane waliidun booy yi mooy yoo xam ne wa ak mag paa yi asmun foo ko déggee mooy xam ne dañu bi ba gàjj gàtt ñoom ñëpp tey sama wuy yonent bi ci laa jëlee doole joo xam ne tey ñu ngi sama doon mhm. ah kon boobu wuy war naa cëlee benn histoire déedéet falay sa alaya war ma alamu yedd maanaam kenn warul maa yedd fi ma si sëy bii ji moo tax sama sama kenn warul ma ci yedd na ko wax dëgg yàlla commencé lu ma neex ci tagg mhm. danaa ko marta wax lu ma neex maanaam comment lépp loo xam ne surtout soobu na danaa ko wax ma ci tagg lu ma neex ci tagg danaa ko wax man Ibrahima Niass foolam ëkk du ma nekk mukk Afrique Afrique du sàggal man ma sàggane tagg foo bahrun géej la min al asraar yi ci géeji mbootu yàlla yi géej géej la ci wala elmi ak xam-xam saa xelul xool mu ngi duus de fuur jawaahir oo or ya may sot or or or ya may sànni tosiri dafa xeeb alxoda caq yi nga xam ne moom lay dafa da ko defee ay caq fa tux ba tux ba dañ koy ñee sax bi maanaa jawaahir maarif maarifa yi nga xam moom lay sotti ñoom seen géej yi duusi maarifa la ñuy duusu yoo xam ne moo ko defee nag or bi nga xam ne moo génne ci géej yi wa badrum kii weer la minal anwaar yi ci nari wala xam ni ak njub taal yoo xam bokk na ma ngay fenk kii weer la ci weer yi te njub la bokk na ma ngay fenk wa ax jëlu wa ax jëla gàcceel na samsan jant moom mu ni tël rek jant ni mooy rafet foogoon ne moom moo gën a leer jant gàcce daf koy dal fi diyaay ci leer fat nax bi too ba da ko ñeen wala jur waxaa kii mooy gaynde guerre ki may tagg bu guerre jotee mooy gaynde guerre jëmu na daa mooy ku bëri tey may ga saarimul iddaa moo jaas yi nga xam ne moo jaas yi dagg ma ni woy yëq day tëddle awal ilaa yi lox àll yi laaw ja woy yëq day maam nag bu koy joxe rek day joxe nam ko waree comme la joxal ma junne du ca manqué comme la joxal ma ñaari dina ma jox فهو مم للإدا تنوني في تيها تبيت نمل تي كل نقمة بيب بغل مم بغل يب بغل نوني من نكتب تنقم maanaam moom mooy buggal noonu jëliilun ku màgg la moom rasulullah jamiilun ku rafet la moom rasulullah muslihun kuy defar la moom rasulullah woo moom mubitul mooy koo xamante ne mooy daane boo fekkee te da ngaa normal moom moo lay daane ku daal nga yëg yëgu moo la daane afaada jëriñ na jumoo al bi di ay mbooloo yu weex dikk nañ ci moom mu jëriñ leen ci yàlla woo moom abaadahum xalak na leen ñi nga xam ne ñoo weex te bañ koo daf leen alal afaada abaada dinaas wa arsada jubbanti na man koo xam ne xatkaan nekk na yax bitu daan pelem pelem firqe yi ci caacaay nga nekkoon ci guddeeg bëccëg dugg ci caacaay nga mu génn ci caacaay yi te nga ci sarafal mu taxi loolu de daan na ko def walaana nooy na nooy na li am diin bu fekkee ne dañu naan borom diina jullit yi dafay nooy neex deret mën a waxtaan waaye annafa na fa bëri na su dee yéeme boo xam ne ba ah, na bu dee neex deret moo gën a bu dee dëgër ko defal ñëpp xabiirun ku dañ ko moo tax kenn mën a ko nax wax naa ko maa ngi ko wax démb Basiir boo liggéeyee sëriñ boo ko toppee war a nekk xabiir waaye sëriñ boo ko mën a man ne taalibe laa xamu ci yooyu dara déedéet man daal sëriñ la déedéet ab sëriñ la tax ñu di ko topp si dafa man taalibe bi côté bu nekk buñ dikkee ci politique mu ne déet bu buñ dikkee ci àddina mu ne ah bu jaar fi baaxul de buñ duggee mu ah baax na de loolu mooy xabiir moom nag loolu la doon moom moom du ak euh, li euh, ak kii de euh, yambar basiir ko am gis-gis la waaye bu mayekat la woo ma muxsatun ko maanu la cay bàññees xam nga lii mooy tagg tagg woo xamante ni da nga koo teg ca aw saafiya waaye du gaa de du da ngaa dem jéggee ni téere sàngam nii la ko waxee ma jël woo jël xam nga bëri taalif yoo xam ne boo ko déggee dañoo jël ay dëpp daaxe ay ay mètre jàpp téere ba jëf yi yéen ci waaye kii nag dafay jëm dem ca fa nga xam ne fara tableau affiche ba nekk mooy jël par tour par tour par melo Muhammadun uñ sant maawul kufri yi mooy efface kéefér madudiya yi kii mooy tëbb leer nga xam ne mooy leeram nga faqat jamaha dajale naa al aldaari ñaar yoo xam ne dañoo moom moo de ñaar ñu jikko yaaloo day yëkkati ku suuf woon moom kawe woyaa bitu day daani koo xam dafa kawe moom suuf moom tax kon nag moom war a ci ñaar mën a kaweel mën a wàcc ale yanni comme salaatu laa jul laaw maa xaali fi nga na moo xam moom ci sama cofeel bu ëpp ji ma di ci ne bi mu ne suuf mooy sama bopp xarfu sël ba tey mooy mujj ci diwaan bi ci paasu 37 ci tey suñu sool ci diwaan bi ah, samaxta yëkkatiku nga ba tiim ani akwaani paase nga akwaani yaa xayra mun xisin yaa mee xam yaa gën ci kat li kat yi yaa tiim yëpp woo fuxta yaa sut bi ma tiim ci takk faa yi kenn bokk na li suma li tagg yi ma lay tagg moo sut li nga xam ne mooy tagg mbooloo yëpp bii ci yaa ci raw yow rasul ndaw la boo xam ne ñu bàyyi ko ñu ne saatul muqaddas jëmm juñ setale yow moo tax moom mooy rasul laay ndaw loo xam ne yaa ngi bàyyi ko ñu saatul muqaddas sirrahu sirrahu sirrahu kañ la xam la sirri njëkk ba ñu wax sirru nga xaqaay ki ñoo njëkk ñoom sirroog ñoom roog ñoom yooyu yaw yaa nekkoon nag foofa xam la wujjóotu sirri un si nekkoon nga sama yutal au ji bi si yaay sama borom xam-xam nga naan jàngal ah lu jiitu ñu naan alamu sirri ah nabastu saan naa man ma jaar fi ngi maa ngi koy génn néeg sànni naa ko ba si waa yi ma ko kul moom ca gannaaw sànni naa ko fële benn mbëgg laa ala eh yaa habiba saatu yow ma xam yaay soppi saatu sama sama soppi saatu sama soppi saatu bi tey yow mii saatu yàlla bi jëm bëgg saatu aliye soo i sama ñaaw dama ne ala dama ne imbisi sama ñaaw ñaaw jël ko sànni ko fële ndax man ko fa inni man Ibrahima Niass la am li maa koy gis sama maa baqeetu faa maa maa maa ngi des moonte yemoon ku ñuy def ku ñuy def jaam laa mm-hmm. duur bi restaurant ci bëgg ndaw laa li nga xam ne kër gi mooy ma dugg boo moon ko certainement ci ma xet li mm-hmm. tant maa ngay dund rek maa sama gént war soxli sama soxla wala fa ko jël ci arab mm-hmm. ma dal ayaam fan yaa ngi daw daw ah matu janaab yi mooy takk ko teg de ala e malaasal xalq yaa malaasal xalq yow xam ne yaay wéetookaay mi defi jot lii nanga tale ci man waa am fis te nga jàllale si nga xamante ni samay wala waa am xisi wala am fis te nga jàllale ndax man nga jàllale woo xut nii woo man ma ilaal ma boobu jëm ci nga xam ne mooy soppi ma jut lii may ma biir mu naa mi ba wasil nii na nga jokkoo nag bara direct fo ini man kat lëkka lësi dama mel na lësi di si laati ci ak jokkoo xam nga euh, lës yi xaraf la xamante ni dafay soxla si la ak mawsuul dégg nga xam nga ne allës yi ah doo mën a taxaw allës yi ki nga xam ne euh, mooy naka tey jaa a juuf allës nga xamante ne yu sa wiiru naa moo ñuy foto waaye boo doon jaa allës rek wax ji du mën a sotti man nag noonu laa mel ak yow boo nee rasulaay rek dem ci teg soppe soppe rasulaay bi ñun ñaar noonu lañ mel le siflaat koo sol ataytu jëkk na da ataytu jëkk na wa inal kusra naka lu bëri xul xillu lu tuuti la bi xillati ndax ni ma néew su ma indee lu bëree bëree bari bëri day mel ni bëri na waaye day bëriwul dafa tuuti ndax ku tuuti man tam man tam lu mën a tudd nag taqabal nag ko nangu nag bi fadlin ci nag nga ne lu nga caw xayra munqasi maanaam yaa xayra munqasi yow mi nga xam ne yaa gën ci kuy xet li la waaye lu ma la indi lu mu tuuti tuuti xam naa lu bëri caw waaye nag moom rek fasala junne alitum alaw laaw maanaam yar ni junne alaw alitum alaw laaw miqdaar qadri lu toll ak wa aalin ak aalo wa sabin wa asaabin ibsin ko xam ne fóori nga borom xam-xam ñoo la ko kon nag intaha wéyal yi adawaa bi nu diwaa diwaanu saani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah